auzu billahi min sheytaani rajim danañ yàlla musal ci loolu auzu billahi min zalik cat nag ñaar yi rek moo am bu nekkut bi la rek nekkut bi lisaan nekk bi lisaani maanaam bu nekkut ci bu bët rek nekk ci bu làmmin bi la ayni wa bi lisaani ñaar yoo rek moo am bët ak làmmin mu nekk lu jar a muslu yàlla ndax bëri waa na ñoo xam ne seeni bët luñ xool rek mu yàqu bëri waa ne ñoo xam ne seeni làmmiñ lum tudd rek mu yàqu bari na ko ay mbiram tege tembe demutut fenn léppam daal di yàqu bët bu xaay rek moo ca xool wala làmmiñ bu xaay daal di ca wax mu nekk lu jara muslu yàlla euh, laata may wax lii nga xamante ne nii dafay musal nit ci cat dafay dindi lu nekk maanaam ci yarami jàmbur muy cat yónnantu bi sallallahu alayhi wa sallam rek wax na mu ne faatixatul kitaab rek boo koy xëy di ko jàng ñetti yoon rek dalay musal ci cat muy alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddiini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddaalin amin ñetti yoon rek daf lay ci cat gannaaw tey jii boo ko liggéey da ngay fexe rek nga daal di bind kun bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam boo paree rek nga daal di liggéey wa in yakkaadu alladina kafaru la yasliquuna bi absaarihim lama saami'a zikra wa yaquluuna innahu la majnun wa maahu ila zikru lil aalamina nga bind ko ci adad bi nga xam ne mooy adada téeméer ak fanweer maanaam cent trente fois nga koy bind cent trente fois euh, kii boo ko liggéey ci cent trente fois nag moom mooy dëppoo ak aynu waaw aynu boo ko isaabee da ngay gis ne dafay nekk cent loolu mooy nekk maanaam bët waaw luy euh, arab di wax aynu muy bët boo ko isaabee da ngay gis ne dafay nekk téeméer ak fanweer muy cent moom lay tollool nga gis ne dafay dëppoo ak li nga xamante ne nii moom lañ liggéey lim bii di wa in yàkkaadu lazina kafaru ila axir ba ca mujjanteel maaga boo paree ci liggéey ko ci loolu nga fexe rek nga daal di def euh, talsam bi comme niñ ko defee nii rek nga am ci nga bañ cee bañ a soppi dara nga jox ko koo xamante nii nag ku xam bind la ta mën bind ndaxte euh, talsam yi ak lu demee ne xaatim yi am na ñoo xamante ni dafa am nuñ ko war a duggee comme ñu demee ne xaatim murabba yi ak yeneen yi euh, du ñàkk bés danaa ñëw def ci waxtaan ci nan nañ war duggee ci xaatim am na xaatim yoo xam ne dafa am noo ko war a duggee ñëwul ne da ngay ñëw rek daal di tracé xaatim rek daal di dugal te xaatim la ca gën a yéeme mooy ne bu cat benn bu ca dammoo rek nga sangoo ko rek wala xawla man ngaa dem ci lu ma téeméeri sëriñ yoo xamante nii buñ xamul ne xaatim bu damm la jàpp kenn du la mën a ñaanal mu nangu xam nga loolu itim gàllankoor la lu ni ñi war a mën a sóoraale la di xool bu baax li ñuy def ci seen yaram ak li ñuy sangoo lu mu doon yow mii bind bii nii nanga fexe nga jox ko man bind te xam mbind mu xam nuñ koy dugalee xam nuñ koy defee bu ko defee ba pare rek mu daal di tëj allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fa yakun boo paree rek nga daal di ut soowu ndox bu la mën a sang juróom benn fan muy six jours rek nga daal di ci def mbind mi yëpp boo paree nga daal di ut lii ma lay bëgg a wax nii muy làmmiñu bay boo utee làmmiñu bay nga fexe am juróom-ñaari puso yoo xamante ni musut ñaw musut jam dara nga daal di ko roof ci làmmiñi bëy maanaam nga jam ko ci ba mu fëll pousse bu nekk rek nga jam ko ci ba mu fëll bu ko defee rek nga daadi ko def ci biir ca ngat gi nga daal di ko sangu ba juróom benn fan yi mat muy six jours yi bu ko defee rek nga daal di génnee làmmiñ bi ak pousse yi nga daal di gas ba nga xam ne xóot na rek nga daal di ko suul wallahi la azim keroog la làmmiñ di tàqalikoog yow moo xam làmmiñ la muy bët keroog lay tàqalikoog yow ci yàqal la inchaa allahu tabaraka wa te lépp lu mu fekkoon ci yow loo xam ne làmmiñ moo ko defoon ci yow sa muy tooke keroog nga tàqalikoog moom ba ilaa yawmi diin inchaa allahu taala maa leen ko jox daf ci am yoo xamante ni yu mel nii la ci secret yi dama ko yore waaye wax dëgg yàlla bugguma di ko wane ndax mën nga koo wane nit jël ko Euh, defee ko noo xam ne nekkeewul noonu bu ko defee mu indil ko beneen gàllankoor bu uuteeg bi nga xamante ne nii moo nekk ci moom moo tax rek bëgguñ di wane yi ndax dafa laaj dégg laaj xam doo koo mën a jëfandikoo doo ko mën a bind moo tax ñi koy def nañ def naa bu baax te jox ko ñi nga xam ne xam nañ ko te mën a bind ñu defal leen ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi jégalu bu baax